mbokk yi alhamdulilah incha allah ñu ngi war a jël tey aaya bu jëkk ci suuratul buruj wassamaa'i zaatil buruj inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kon alhamdulillah ñu ngi yee salaat xéewal ak suñu boroom sant xéewal ak suñu boroom ci bim ñu wërsëgalee ñu waroon a woor weer benn weer ci at mi mu yombal ñu ba genn wàll ga moom féete nañu gannaaw yal na yàlla nangul ñu ko genn wàll gi desit yal na ko yombal ci ñun ca nangul ñu ko kon incha allah bu dee Cheikh Ousmane pare na mu delloo ñu suñu bind bu njëkk.
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم suñu borom mu ne mi ngi waat ci asamaan wasamaa'i zaatil buruj di waat ci asamaan bi nga xam ne mooy borom biddiw yu mag ya wal yawmil maw'ud mi ngi waat ci bis bi nga xam ne moom la ñuy diggee wa shahidin wa mashhud di waat ci aji seede ak ka ñuy seede qutila ashaabul uxdud ay waaye alkuna reef nañu mooy alkuna rek ñooñu ngaarew ya muy ay pax yu rëy rëy rëy yoo xam ne dañ koo gasoon an naari zaatul waquud def ca sawara soo xam ne su ànd ak matt muy takk la is hum alayha qu'ud jamono ba nga xam ne ñoom ña nga nekk toog wër sawara wa wahum ala ma yafaaluuna bil muminina shuhud te ñoom day lañ doon def ci jullit ñi di leen taal ña nga nekk di ko séede wa ma naqamu minhum doonte ne fayuwuñ ci ñoom ci lu ñu def illa an yuminu billahi al aziz al hamid xanaa lu dul ne dañoo gëm yàlla mi nga xam ne moo not lépp ci kàttan ga ca yeyoo cant yépp allazi lahu mulku samawati wal ard moom mi nga xam ne ñeel na ko ngóorug asamaani ak suuf wallahu ala kulli shay'in shahid te yàlla day bépp mbir bu mu mën a doon mooy akay mooy ka koy seede inna allazina fatanu almuminina walmuminat ñi nga xam ne dañoo fitnaal julit ña góor ña ak ñu jigéen ña summa lam yatuubu te ñoom day tuubuñu fa lahum azabu jahannam ñooñ day dana leen ñeel mbugalum jahannam wa lahum azabu lxariq ñooñ day dana leen ñeel mbugal moo xam ne mbugalum lakkaate lay doon mi ngi noonu mbokk li mooy suratul buruj suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam daan ko bari lool di jàng ci waxtu gee di ko booleeg saar bi ci topp muy suratu taariq suratul buruj mi ngi wàcc ci marxala la ñu tuddee marxalatul fitna mooy jamono bi nga xam ni rasul sallallahu alayhi wa sallam mi ngi dund fitna bu tar biir makka ndax xam ngeen da'wa bi dafa am ay étape am na étape rasul sallallahu alayhi wa sallam woote bi da koo yemelo woon ci moom ak ña ko jege ñu dem ba suñu borom ne ko fas da bi moo tu omar feeñalal da'wa bi mu commencé nag di woote en général mbiram siiw ñu koy commencé topp benn par benn biñ demee nag ba waa makka yëg ni lii kat mi ngi bëgg a nekk danger te lañu commencé ne képp ku ko gëm ñu teg ci yow fitna yoo xam ne fitna yu tar la yaakaar naa yéen ñëpp dégg nga fañ daan jaar ak Bilal daan ko futti ci tàngoor Arabie saoudite bii def ay cinquante degré yóbbu ko ca montagne boole ko xale yi ñu koy diri di jël ay xeer yu rëy di teg ci kawam daawul paase lu dul di wax allahu ahad ahad ahad mi ngi noonu mbir yi gis nañ ci taraay boobe kii di alxabaab ibnul ard ñëw na ci yenente bi salallahu alayhi wa sallam e yow mi yàlla yónni ñaanal yàlla xetti la ñu dimbi la ñu ndax kat nattu yi tar na rasul sallallahu alayhi wasallam daal di jóg na ko ay xabaab da ngeen a yàkkamti doonte ne ne day lii ma indi yonent yëkk a jëkk a indi ña leen toppoon am na ci ñoo xam ni daanañ leen taxawal indi ab si teg seen digg bopp siyee leen xar leen ñaar te loolu du tax ñu génn seen diini jox ko ay misaal gannaaw ba la ko suñu borom wàcceel lii de suratul buruj mbokk suratul buruj bokk na qissa boo xam ne ni dañ ko ci nettali boo demee mi ngi ci sahihu muslim rasul sallallahu alayhi wa sallam ni ay nit la ñu woon ñoo xam ni dañoo ñëwoon ci gannaaw isa ñu ngi nekkoon ci najran ci arabie saoudite yoroon fa seen seen nguur léegi buur ba nga xam ne moo jiite woon amoon na benn buxa ba bu mag boo xam ne moo ko daan njabaral moo ko daan seetal comme ni ko firawna amee woon ay buxaaba léegi nag buxaaba bi bi mu demee ba màgget mu ne ko da nga may yónnee benn xale ma jàngal ko ngir bu ma fi jógee nga mën koo dimbali ko buur bi boole ko benn xale xale ba ji dem ci moom mu koy jàngal njabar waaye xale bi ci yoon bi ngi romb benn labbe te loolu bari woon na ci labbe yi toppoon diine christianisme mooy tasaaroo ci àll bi beru amuñu kenn affaire di jaamu yàlla rek te cosaan ba fitna moo ko waraloon ndax boobu dañ leen doon persécuté di leen rey léegi xale bi bi mu ko gisee mu ñëw toog ak moom labbe bi woo ko ci diine woo ko ci tawxiid woo ko ci lañ war a gëm loolee mujj muy toog foofu bu demee ci njabar bi njabar bi indil ko ay problème bu demee ci seen waa kër ñu koy coow labbe bi na ko ni ngay def rek yow boo demee ci njabar bi ne ko sama waa kër day ñoo ma téye woon ci liggéey waaye dama pare rek ñëw boo demee ci seen waa kër nga wax leen loolu loolu la ñu tuddee attaqiya ci gàttal xale bi jàng na tawxid jàng na diini léegi nag benn bis yàlla nattoo waa dëkk bi yoon principal bi ñuy jaar am benn bàyyuma bu ñàng boo xam ne ñëw na taxaw foofu kenn ñëmuwul jàll xale bi ni tey nag lay xam bu xaaba bii li may jàngal ak labbe bi li muy wax lan la ci yàlla gërëm daal di gàddu ngandam xeeram rek dem uti bàyyi ma bi bi mu ñëwee rek bàyyi ma bi jóg mu dóor ko ko rek mu dee ci saasi mu daal di ne nag ah kon xam naa ne kii moo nekk ci dëgg kooku continuer ko jàngal ko ba mu xam xale bi it yàlla may ko ku feebar bu la ñaanalee rek nga wér ba bis ki nga xam ne mooy conseil principal buur bi silmaxa la woon dégg xabaar bi ne xulaamu buur bi day day ñaanalaate ah mu ñëw ci moom da ko dama bëgg nga ñaanal ma ndax ma ma ma gisaat nga mu ne ko ah man day du man may waa daf na ko dama bëgg nga faj ma mu ne ko man du man may faj mu ne ko koy faj mu ne ko yàlla mi borom asamaan ak suuf mu ne ko yàlla budul buur bi mu ne ko waaw waaw yàlla bi ñu moom moom buur bi boo ko gëmee daal ma faj la waa ji ne ko ah man kay gëm naa loolu mu ñaanal ko mu wér waa ji ñëw ci buur bi toog di gis buur bi ne ko waaw yow da ngay gis foo jëlee lii mu ne ko ah lii kat man mënuma koo wax ndax booba xale bi it da doon nëbbuloo secret bi ko buur bi jëlee menacé ko mu doog wax ne xale bi moo ko ko jàngal ah xale bi daa di moom it ñu daal di koy woo biñ ko woowee ne ko foo jële sa xam-xam bi mu daal di wax labbe bi buur bi woo xale beeg labbe bi yépp daa di ne nag génn leen ci seen diine ji seede ne man may yàlla sinon ma rey leen ah ñoom it ñu ne déedéet say boo nga rey ñoo ñun duñ dellu gannaaw buur bi gas leen ba seen tànk dogu mu indi ay si ñu siyee conseiller buur bi ba mu xar ñaar mu sax ci la ilaha illallah la ilaha illallah ñu si ñu xar labbe bi ñaar mu des ci la ilaha illallah la ilaha illallah amma xale bi biñ jëlee ba koo siyee mënu ñoo fexe ba dagg bab bi buur bi ne leen yóbbu leen ko ca montagne tel ba ngeen demee ngeen bëmax ko bu daanoo dana dee bañ demee gaa yi yéega nag moom ca montagne ba montagne ba yëngu ñoom ñu daanu xale bi dellu siwaat ci pale bi mu ne yóbbu leen ko biir géej ñu yóbbu ko biir géej gaal ga suux ña ko yóbboon suux xale bi delluwaat ci biir pale bi buur bi jommi mu ne ko buur da nga maa bëgg a rey mu ne mu ne ko yomb na léegi wool dëkk bi yépp ñu ñëw bu ñëpp ñëwee nga jël benn flèche nga ne maa ngi sànni ci boroom xale bi bi rabbil gulaam maa ngi sànni ci yàlla mi boroom xale bi boo ko defee danaa dee buur ak ak dañ kumpaam na waa baax na daal di wax garde yi nañ ko wool ku mën a ñëw na ñëw bi dëkk bi yépp ñëwee buur bi daal di jël flèche bi daal di ne bismi rabbil ghulam sànni ko rek affaire bi dal ci kaw nopp bi xale bi daal di daanu dee dëkk bi yépp àndonoo ne amanna bi rabbil ghulam ñun day gëm nañ yàlla mi borom ghulam bi fekk xale bi loolu ci bëggoon buur bi ne ah ñu ne waaw ña fa nekkoon ñépp ne dañoo gëm diiney nasaran ca xale bi ca la doon woote ñu ñu jàpp leen ca la gas la nga xam ne nii mooy yow gone ak Ndakaaru mooy fi tuyau yi mag yi di jaar pax yoo xam ne pax yu yaatu la mi ngi noonu ay fossé léegi ñu wax nañ ko taal ñu taal ko ba mu takk mu ne nag ay ca seede na may yàlla wala dem ci biir sawara wi mi ngi noonu gaa yi bañ muy yóbbu di yóbbu di dugal di dugal góor ak jigéen moo tax suñu borom nii lazina fatnul mu'minin wal mu'minat waaw rasul sallallahu alayhi wasallam nee na am na benn jigéen bu ñu xëcc ak doomam di yóbbu ci sawara bi mu ne waa xanaa sama doom ji moom deful dara te ngeen ko bàyyi xale bi wax ak moom ne ko yaay demal lii nga jëm muy dëgg mu ànd ak moom dugg ci biir mbokk lii la suñu borom yàlla netti lii mu ne nag ci commencement saar bi ne mi ngi waat wa samaa'i zatil buruj al buruj am na ñu koy firee biddiw yu mag yi am na ñu koy firee yoon ya nga xam ne dañ cay jaar ala kulli xaal suñu borom waat na ci tabaraka allazi jaala fi samaai burujan te mooy naam boo gisee jant dana la yéem nga gis biddi yi mu yéem leen waaye lan moo lay gën a yéem la lay gën a yéem mooy yàlla mi leen defar bàyyi leen foofu moo tax suñu borom feneen mu waat ci ci màggaayam ak kawaayam tabaraka allazi jaala fi samaai buruja borom boobu mu ne mi ngi waat ci bisu allaaxira bi ñuy tëkkuwaate te yàlla mi yëkkati asamaan def ciy buruuj yàlla moom am na kattan dëkkal jaam yi beneen yoon moo tax mu ne ak bis bi ñuy tëkkuwaate mu ne mi ngi waat ci seede ak képp ku ñuy seede seede bi gën a mag muy suñu borom jàll waala moo tax ci fin bi li ñu mujj a jàng wallahu ala kulli shay'in shahid mooy seede bu mag bi gannaaw ba ay malaaka may seede lañu yeneen yi ay seede lañu almashhud dana nekk bis bu ñuy seede waaye dana nekk bépp jëf boo xam ne doomu aadama ak jinne ñu ngi koy jëf am na lu leen am na lu koy seede mi ngi noonu borom bi daa di ñaan ab rëbbam wax ak rëbbam ci asaabul uxdud muy buur boobu nekkoon ci najran doon taal julit ñi nga xam ne taal na taalam bu yaatu matt yu dëgër ñuy takk ñoom ñépp mooy buur bee ko notable am wër nag di seetaan julit ñi ni ñuy lakkee ak ni ñuy deeyee mi ngi noonu ñoom ñi nga tegoon di ko seetaan ca day ñii du ne dañoo sàcc du ne dañoo rey nit du ne dañoo dara ana lan mooy ban défaut défaut bi ñu leen di toppee mooy dañoo gëm yàlla kese yàlla mi nga xam ni moo not lépp ci kattanam yàlla moom nga xam ne mooy alhamid li nga xam ne cant yépp ci moom lay dellu moo ko yeyoo donte day sant ay jaamam yàlla moom nga xam ne moom moom nguuruk asamaan ak suuf yàlla moom nga xam ne lépp moo koy seede waaw léegi mbokk al aziz al ki moom mulku asamaan ak suuf lu tax muy seetaan ay jaamam ñu leen di reye nii mbokk li tax muy seetaan loolu mooy loolu xikmaam la mooy jaamam yi ko gëm nangoo joxe seen bakkan fi sabilillah dañ leen di boole min shuhada ci loo xam ne jurit da ko war a ñaan yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na képp ko ñaan dee fi sabilillah te muy dëgg ci yow ëllëg yaay shuhada yu yene ànd même boo dee sa kaw lal ndax shuhada yu ñooy grade yi gën a kawe buñ la reyee da ngay dee buñ la reyul da ngay dee am déet ñooñu leen doon rey ak ña ko fekk kañ lañ dee woon di siècle si des siècles kon xikma bi yàlla mooy tereele ñooñu nga xam ne dañoo gëmoon te jëf lu baax bu yëkkati seeni daraja boole leen mu ne shuhada moo tax mu jëkk indi nag say-say su bon si mu ne ñii nga xamee ni nii dañoo fitnaal góor ñi ak jigéen ñi te it jàpp leen mbokk baatu fitna yàlla nañu yàlla musal ci ay fitnaam am na ñoo xam ne fitna bu ñëwee dañ réussir mu yëkkati seeni daraja comme ñii nangu ñoo taal leen ca yàlla tax waaye nag am na ñoo xam ne attanuñu fitna heure bu ñu leen fitnaalee seen diine ñu dellu gannaaw moom la borom bi wax naan wa man sharaha sadra laakin man sharaha lil kufri sadran fa alayhim mi ngi noonu ghadabun min allah ila akhiri mooy képp koo xam ne nii dafa waxoon ak kéefér fekk dañ koo fitnaal wa qalbuhu mutma'innun bil iman fekk ngëm gaa ngi ci moom koo koy wax ji muy wax du ko du ko lor waaye am na ñoo xam ne heure buñ dajeeg buurub saay-saay mu menacé ñu daal di bàyyi diine teg ko gannaaw fële borom boobu nag ni ñi nga xam ne dañoo fitnaal ay jaamam ca tuubuñu ca tuubuñu mbëgulum ah jahannam mi ngi leen di xaar mbokk di aaya bi bokk ci aaya yi ëpp yaakaar ci alquran yow ab yéefér muy un nga jël jaami yàlla yi taal sab taal góor ak jigéen lakk leen ca toog seetaan bànneexu ci ni ñuy lakk ba jeex suñu borom ne boo tuubul sa war a nga jëm gaa yi bu tuubee nag bu tuubee yàlla baal ko kon yàlla mooy alxafuur loolu moo tax ma nga la waaye yow mi nekk ci njuum te tuubal rek ak noo mën a mel tuubal koo mën a waxalit waxal ak moom mu tuub ndax suñu borom muy faalu lima yurid comme nam koy waxee ci bopp saar ba tey jii ñi jiite woon xare Uhud sonal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñan général d'armée ba mi ngi tuddoon Abu Sufyan moo nekkoon buuru Makka ka nga xam ne mooy ki stratège bi taxoon yéeféri gaño mooy Khalid ibn Walid ki reyoon ko yonent bi gënoon a fonk ca ña dee muy Wahshi moo reyoon ka nga xam ne muy Hamza ka jiite woon jigéen ñi muy Hind say ka nekkoon yéeféer boo xam ne sonaloon julli muy Ikrama doomi Abi Jahal ñoom ñëpp da ngay gis ne sunu borom jéggal na la ñu tuub dugg ci lislaam yàlla nañu yàlla boole ak ñoom ci àjjana ya loolu kon mbokk mooy borom bi mooy mooy ki nga xam ni mooy kii ay jaamam ne bu ñu tuubul dañu leen bëggal amma nag ña nga xam ne dañoo gëmoon moom seen mbir mi ngi nii ci kanam
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويبدئ وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
barakallahu fikum suñu borom mu ni inna lazina amanu wa amilu salihat ña nga xam ne day dañoo gëm te jëf-jëf yu yiw ya lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar dana leen ñeel ajjana yoo xam ne dana daw ca suufam la nga xam ne moom mooy dexi dex ya zalika al fawzul kabir lool nag mooy texe bu mag ba inna batsha rabbika la shadid sa jàppinu borom day lu tar la innahu huwa yubdi wa yuid moom day mooy sos mbind ga moo koy baamu waat wa huwa al ghafurul wadud mooy kiy sax di jéggal ab jaamam waaye mooy ki sopp ay jaamam zul arshil majid moom mooy borom arash ju màgg ja faalu lima yurid mooy aji def la ko soob hal ataaka xadiisul junud ndax dikkalu la waxtaanu armée ya firawna wa samud lii di armée yi firawna ki wa samud bali lazina kafaru fi takzib waaye la am kay lii di yéefiri dañoo nekk ci weddi wallahu min waraihim muhiit doonte ne yàlla day ma nga seen gannaaw peek leen bal huwa qur'anun majid li am kay mooy lii alquran la ju màgg fii lawxi mahfuz nekk ci alluwa joo xam ne ju ñu wattu la muy alluwa yi borom ba mi ngi noonu mbokk suñu borom day wax ne ñooñu nga xam ne ñoo def musiba bu rëy boobu suñu tuubul jahannam mu leen di xaar ca mbokk ñii ñu rey ci safara bi nga xam ni métit bañ cey am bu dee passé na trente minutes ca lay yem suñu borom yàlla mu ne nag ñii di waa sawara ñoom jahannam moo leen di xaar te jahannam mbokk julit ku fa dugg moom doo fa dee doo fa dund ba faw amma ñi nga xam ne dañoo gëmoon cay def lu baax ñu rey leen ci yoonu yàlla ñoom ay jardin moo leen di xaar yoo xam ne dex ya ña nga cay daw te lii mooy texe bi gën a rëy bu doomu aadama yi sakku ci kaw suuf wak doomu aadama su jubluwaay bi gën a rëy bi ngay war a sakku ci kaw suuf mooy nooy def ba dee dem aljanna jeex na dund fi cent ans dund fi trente ans yépp amul amul amul problème nekk fi ab pauvre ci néegu ñax ak nekk fi ci gratte-ciel yi nekk New York amul problème lii problème mooy ndax lan nga mujjee mooy dee nga dem nga dem nga aljanna lii mbokk moo tax ba sahabatul kiram bi leen yonent bi jàngalee saar yi mu gën a dëgëral mu gën a dëgëral seeni pas-pas ba jàpp naa kenn ci yéen réerewul ni ki nga xam ne mooy famille Yaasir kii di Ammar ibnu Yaasir baayam ba di Yaasir yaayam ji di Sumayya say-say bu bon ba Abu Jahal moo leen moomoon bi mu yégée ne tuub nañ dugg ci lislaam mu ñëw yeew leen yeew leen di leen dóor dóor yu metti yoo xamee ni nii dem na ba kii di yaasir moom ci la feebar feebar yu metti gannaaw ba loolu sax moo ko rey amma sumayya abu jahal ñëw na bis na ko waa yow doo génn ci diiney muhammad ji delluwaat ci suñu diine ji mu ne ko déedéet mu daal di mer jël xeej bi mu yoroon samp ko ko ci biir bi ba mu jàll ci suufam mooy ki jëkk a faatu joxe bakkanam ci yoonu yàlla mooy diini lislaam ji ki ci jëkk a joxe bakkanam jigéen la muy déere góor la ak jigéen bi sumayya mi ngi noonu loolee da ngay gis ne mbokk julit borom bi subhanahu wa taala nee na ñooñu àjjana moo leen di xaar yeneen sahaaba yi it ñi ngi leen di tëj ci ay néeg di mbugal di dóor di mbugal waaye amul kenn ci ñoom koo xam ne mbugal ya tax na ko mu dellu gannaaw xanaa lu dul ammaar biñ gisee bàyyam balam daj ñu rey yaayam ci kanamam abu jahal wax na ko mu ne ko waaw weddi naa yàlla gëm naa laat ak uzza abu jahal kontaan daa di koy yeewi mu daw ñoo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko alkuna mu ne ko lu la alak mu netti li ko ne gis nga ñii lañ def sumay waajur ma ni dóor yi metti na ba ma ne weddi naa yàlla yonent bi ne ko waaw booba sa xol num mel mu ne ko sama xol a ngi wér ne laa ilaha illallah et que ñoom li ñuy jaamu ay caaxaan la yonent bi ne ko bu ñu delloo ci mbugal ñi delloo ci wax jooju looloo tax dafa am ñaari martaba bépp jigi bépp julit boo xam ne ñi ngi koy jël di ko mbugal ci diineem mbugal yi bu demee ba mënu ko dikku su waxee kaddu kéeféer fekk biir xolam moom gëm yàlla ci nekk kaddu googu yàlla du ko ko toppee amma bu muñoon bañ rey ko ca loolu mooy la gën bu muñoon bañ rey ko ca loolu mooy la gën ñuy fàttali xale yi doon woote diine ci Syrie te it xam ngeen Syrie mooy Syrie boobu jamonoy Bashar Assad gaa yi dañ leen daan jàpp mbugal yu tar ba jàpp ne noot nañu leen ñu indi leen ci kanamu istati Bashar daal na léegi da ngeen koy da ngeen koy sujjuutal xale yi buñ ñëwee ni ko xoox tëf day gaa yi dóor ñu dee waaye mbokk mi ngi noonu képp koo xam ne nii dañ koo war dañ koo woo ci shirk ci bokkaale la nga xam ne mooy la gën mu muñ loolu bañ rey ko ca dóor ndax su boobaa la koy xaar mooy aljanna mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala nag ni mooy kon ki nga xam ni jàppam lu tar la lu tax loolu moo bind lépp mooy del mooy baamu lépp képp koo xam ne da ngay mbugalaate jaamu yàlla nga yàlla la bind te yàlla moo lay dekkal la nga xam ne moom nga yeeyee mi ngi lay xaar loolu ma ngi ko jëmele ca say say say fitnaal ay jaamam yàlla moo leen bind dana leen mës a dekkal waaye ñi nga xam ne dañoo gëm cay def lu baax suñu borom mu ne maa maay kiy jéggale maay kiy soppaate te mbokk suñu borom yàlla dafay jéggal ay jaamam yi tuub waaye du yem ci jéggal leen di leen di bëgg rasul sallallahu alayhi wasallam jox ñu ci benn misaal ca loolu yi tamit des fois théâtre yu ndaw yooyu léeg-léeg nit ki dina ca jële xam-xam bu gën a màgg ba muy jële ci ay ay bind yonent bi alayhi salaam nee na gis ngeen jaam bi nga xam ne daa nekkoon ci ci ci ci ci mooy yàlla mooy yàlla ñaar la imma bàyyi li yàlla santaane mooy sàggane julli koor ak yu deme noonu wala def bàkkaar yi njaaloo naan sàngara kart ak yooyu mu ne kooku bu demee ba riccu ba loolu mu doon def ci lu bon mu bàyyi ko ci yàlla tax doonte ne bànneexu bakkanam moom loolu la bëgg waaye mu xeex ak bakk bànneexu bakkanam ba delluwaat def ko ci yàlla tax mu ne yàlla da koy sopp soppeel kontaan ci moom kontaante gu toll ne waa ji doon tukki yor benn waruwaayam def ci lekkam ak naanam dem ba ci benn désert rek waruwaay wër ci ko gannaaw ba mu wër ko wër wër gisu ko mu ne léegi dee rek moo des mu gis benn ker mu dem tëdd fa naa toog fii xaar dee fi mu ne jayi ci nelaw rek yeewu gis waruwaay wi taxaw tiim ko mu téye ci buum gi daa di ne ay yàlla yaay sama jaam maay sa borom kontaan gi ba ba jaawale mbir yi mu ne kontaante kooku waa ji kontaan ba jotaat waruwaayam jotaat lekkam ak naanam suñu borom lay sukka mislihi shay dara melul ne moom waaye nee na yàlla dana gën a kontaan ci jaamam bi dellu saat ci moom ni raw ni lu ko loolu kontaane moo tax mu ne alxafuur alwadud ki sopp ay jaamam donte ne borom boobu mu ni moom mooy zul arshil majid arsh ju màgg ja moo ko moom mi ngi noonu nga xam ni moo tim mboole mi mbindaa fanam ca mooy kuy woote nguur nguur ga mi ngi ci suufu nguur gu yàlla jalla waala mooy def loo xam ne moo ko soob faalu lima yurid naam moo tax mu soob ko mu seetaan jaamam yi ñu lakk leen mu jël leen yóbbu aljanna donte ne ne am na yeneen jaam yu mbëru woon daa dal seen kaw daa yi firawna kay suñu borom mu ne ndax dikkalu leen xabaaram naam firawna ba mu jëlee bani israil di leen teg suu al azab la gën a ñaaw ci mbugal di ren di seeni doom keroog ba mu demee nag ba jóg ne da leen di faagaagal mook armeem ah ca la ko suñu borom yàlla booleeg benn jaamam bu ñuy wax géej géej ga daal di koy labal waa samud ba nga xamee ni nii yenent yàlla saalih woote na ñu saboote ko fitnaal ko moom ak xeetam ba xëy benn bis sax ne taxaasamu billah lanu bayitannahu wa ahlahu summa la naqulunna li walihi ma shahidna mahlika ahli samu kii di saalih daal sonal nañu léegi mook ñii ko topp ñi nañ dem rek gudd ñi piège leen ñu rey leen benn yoon suñu borom bu ne makaru wa makarullah wallahu khayrul makirin da nga noonu ba ñuy fexe def seen pexe suñu borom it fexeel ci ñoom ca mooy dëkk ba yépp la booloo alak ci ak yuux kon yàlla moom am na kattan ci loolu waaye nag borom boobu subhanahu wa taala mu ne moom mooy ki nga xamee ni nii mooy def lu ko soob bu ko neexee xecc li ab jaamam su ko neexee tere la ko mu dee ci yoonu yàlla ngir mu yëkkati ay darajaam mu ne nag yéefiri ñoom duñu dañ di sax ci ak weddi li ñuy def lépp dara rëcc ci yàlla du lu ñuy wax du lu ñuy jëf yàlla mi ngi leen peeg dara rëcc ko ci ca na am ñooñu doon weddi yonent bi alayhi salaam yépp yàlla subhanahu wa taala jàpp na leen mu ne nag kon alquran ji ñuy weddit bal lañ foog du loolu bal huwa quranul majid lii de alxuraan ju màgg la joo xamee ni nii mi ngi jóge ci yàlla ngiree jullit ñi jaar ci ngiree mu màggal leen képp ko bëgg a teddaange alxuraan rek mooy yoon ba mu ne nag yàlla mu ne mi ngi nekk ci laxwil mahfuuz te mooy avant muy wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla bokk na lu mu bindoon ca àll woom jooju nga xam ne ca la bind lépp loo xam ne dana nar a am ba ila yawmi diin ca allu wala joo xam ne benn loxo du ko jege ku dul moom jalla wa ala kon mbokk lii mooy suratul buruj incha allah ñu jël suratu tariq